mën a gasation ah. seet la la neex nga def jël ngoone mii muy ko borom kër te yolool boo ko defee tegoo ko ci diini tegoo ko ci ko la neex nga ko teg te loolu ngoone mii moo fi woy juróom maay ndeyam maay baayam maay magam ndax man la fi bokkal mm-hmm. bu nekkee sama soxna ma wàcc ko it balaa kenn cee def dara danga maa war a woo laaj ma sama avis ma ne léegi ci sama avis nga doon di xool sama avis bu jaadoo nga xam su jaadowul nga am waaye jékki saa rek dem xool sa sàmba booy may ko ngóone ana foo ko teg imaam euh, nice dama laa bëgg yëgal ñaar kii magum jëmm la kii ab jeeg la ba ci war naa mën a toog xool ne ko moom nekkatut ci buum ba ci sëy na sëy ak tas sëy tas sëy ak tas sëy. déedéet kaar kaar kaar kaar sëy tas sëy ak tas jàpp. jàpp lim ma ne li ma la bëgg a déglu moom la rek. kenn dong la sëy ma su. li ma. dégg ma ma ne. xam ma. ma daaneel na. non non tas jege nag. la dem gisal góor boppam. ñëw dee ma ko. yaa ngi koy ji ñu cagati gisal bëgg ma fa waaw waaw ma ne bu waxtaanee nit ki ñëw ne ma man imam bëgg naa nga euh, doxal ma lii ah. ma dem gis imam Diallo mi euh, délégué Diallo mii di sab wëllëre waxtaan ak moom. Ah, ma man maa dem dégg defal ndànk new ma la. déglu dama la ne maa dem. yéen a ko ne ko Diallo mu naan ndoo si am na lu ma dee da ngay déglu dégg nga am na li ma wax te li ma wax booy xool dëgg la te mooy yoon. nee na yee am na ku mu gis ab ab ab ab góor boo xam ne mun naa wóor na ko ni mun a dund moom. dama naan góor gi sa waay la. dégg nga xam naa la fi di gaa. waaw dem bu fi nekk di jéem a lu la ñu tànk jàmm ba takk sëy ba. waaw fi mu ne nii. jabaram na ci yoonu yàlla. Ah. waaw. Eh, yow yow nga kilif di di makaro. Hmm? ci makaro nguuni ba pare li nga wax sax dafa garaaw nguuni mag mu toll nii. moom nga naan ko doon génn di gis wax ji di bëggante moom mais de gone koy bëggante. mais de gone koy seere. ma ne ba ma ne xam nga lan la man maanaam ca waxin. naa ñaar nit bu ñu gisante tooguñu ah, waxtaan. bëgg ma ne de xam xam li ma la bëgg a yëgal foofu rek mooy. Mm-hmm. jàppal ni ka. Mm-hmm. Euh, li ñu war a def def nañ ko. waaw ngóone mii am na borom kër. waaw waa ji daal bu neexee yàlla. Mm-hmm. Euh, waa Kaolack la la. Kaolack ah, waaw waaw Kaolack yii. tàngoor dégg nga. dëgg la imam wallaay. fa dëgg de tàngoor fa dëgg la tàng nag sedd de. dëgg la dëgg la sedd de. dëgg la Dakar kay de ah, sedd ma ma ma segam na loolu taxoon nga moom a di ma laaj. Mm-hmm. leeralal naa la ko bis ni ko ah, tey. ndem nag waaw waaw. ndem xool ngeen la leen neex ngeen def. ma ne dem dinaa xool li ma neex man ma def. moo la lan. mooy demal moom dina ñëw ci kër gi. du fi lay koor nga ne. bu neexee yàlla. waaw baax na. takk sëy bi daal lépp ne ngeen jàpp. fii lay umee allah waaw dina ñëw waaw ni nga joxoñee ne ni nga joxoñee ni sa di wax. xam nga loolu nag wane ko ma ne. sama kër nga ne ma ne ndaw si kër gi. waaw te fii lay ummi say koor. incha allah waaw ba ñàkk si jërëjëf ñoom. waaw waaw day solo solo imaam jël ko ko war ngay solo waaw. kii. maaleykum salaam. waaw lu muy rëppi rëppi nii moom. Eh, yow ñii damaa ñu xam nga lu mu defa ah? nee eh, lii la may borom kër. waay sax nee li gën a neex du loolu la du kii bi li gën a neex nee ñëw fii lay sëy si kër. <laughs> Eh, kii de moo foo. waaye Ndiaye xamee naa la la boo xam ne. moom laa bëgg nga toog si sax si. ba fexe ba ñaari góor buñ daagu si kër wala ngoone moom génn si biti. la sa xol sedd. kër gi fii benn gaño fay takku tamaa koy takk. kër gi fii mën tam ñaari kuy. benn kuy fi ne mooy maal bu baax maa ngi ràcc. fi nga bëgg a sëy te bëggu góor la nekkee temps yi loolu dinaa ci xam dara na sa xol sedd. damal nga toggal ma sama ndogu moo ma man damal nga toggal ma ndogu bi. gërëm sa laay jabar gone xam nga waykat ba waali nee na musique gone waaye jabar gone eh, ay monsieur gone jabar gone ay jabar gone jabar gone gone ay man damaa wóor wala ki yor naa bàyyi li may def man mii mi waaye jàll moom jàll sama ko jàll yow papa ah. li nga wax ak imam bi yëpp dégg naa ko hmm. ah mënoo bàyyi jàmm mu am beneen jëkkër eh li nga wax la say ma ko tey bàyyiwu ma ko tey say bu ndax waajee sëy si. maa ko mën a tudd mu dugg. nga ko bàyyi nag. nga def sa cuut bii. cuut yi lan. ah waaw xam na nga cuut. jaa lu ma doyab jeeg jeeg kay saa daf ma ci doy sëkk man kay jàngalaatoo loolu am naa ko xam nga la la. kii nga teg bët sa tante la. parce que jox ko cër sa tante la. bu tuutee sa tante la bu tuutul sa tante la. du ma takki mag du ma jóge ci mag dellu ci mag ci gone la dellu. te bu ma tax a wax nag. yow papa amoo ay bët sax. daal ndem moom def na lu ko neex nee na dem jëkkër fa force maag moom moom laa versé ter la ñu dund ci kër gi. njob ba dem gànna wattu. wax nag ndax xam nga ne laa lay xamal yow nag sama jaay laa la tudde mais yaa ngi bëgg a jaaxal yaa ngi bëgg a jaaxal naa fi nga de yaa ngi bëgg a sëy may dëngal ndax nag bu faral dem man nga war a fa ndax doom jigéen dañ na bàyyi ba waaye yow defoon ne moo jëm jigéen de la di ñu ko may gisoo ko déggoo xanaa waa Kaolack na dëkk bu tàng bee. bëgg na ñun sax au xam nañ li ma lay xamal ba xamal la ko yow mënu ma laa tere yenn ndax sama doom nga sama deretal robinet bii dinaa lay may nga yoroot sa siwo di sangu soo bëggee poti ndox ngay tàng di di naan dégg nga duus bi saa yu la neexee mën ngaa dugg buntu kër gi dama koy caabi di tëj douche bee damay tëj caabi ràpp robinet bii sa yaay mu ndem leen day sëy di wuti borom kër ndem lii maag fi def bu soobee yàlla dina kër gi laa fekk. tant que maa kër gi lu may def yëpp sama fi am nga ko koy xaayal moom bu yeboo booy sangu boo duyoo si yow ndox bi nga may sa yaay mu jàngu bu jàngul du sangu boo naanee balaa ngaa màndi pot boobu bu yeboo nga xewal ko ci lu ko may dina topp koñ bi topp laa ne ñaani ndox. ndax xam naa ne sama caabi robinet fi ma koy dox te xam naa ne sama jeeg bi ci biir sama ki nga naan cuuc sama cuuc mais laa jox caabi ji mu téye dund ak yéen ci kër gi l'enfer sur terre leen say day say tamay de yow ngoone yow da ngaa seetaan yónni jarul yónni gone gi mënoon ngaa ñëw sa bopp say say doléance nga yónni gone ko noonu waroon gaa ñëw yow kay ba nga amee li ngay am bay may sa bopp borom kër di bëgg góor mel ni ku nekk sa salaire noonu ci góor la jógal sa bopp nag ñëw fii ci man ci ngay xaar ma ak yow la di ko xaar muy ñoom muy jàmm sant ak ma nu tëj bunt bi daal bu bëggee dugg dina ko muy jaar. man la. waaw kooku. la jimboori. waaye si du kër de bi. ah sa ku di sa xanaa gardien bi fii du kër fii ay sëg ah. Ngoone.

ah ku koy doon waaw ku koy doon ñun ñaar. sama diggante yow koy doon néew. yow ñàkk nga jom de. sëg néew rek nee naa ko fii nii sëg ngir yàlla bu la yàgg na ay ah, laaj. Ah, yow waxal ak sëg li ñu teye. nijaay sa waay. nijaay foo jëm nijaay tabal. Ah, Ngoné teel ma yére yi. ah waaw. nijaay ñëw Ngoné teel ma yére yi ah waaw Ngoné bu ma ko delloo nag bu ma ko delloo ah, na ma lii waay ah taabal bi moom ki ko doon yanu li tax mu ah, ah, ma ne Ngoné waaw ah, waay ngoone waay ana ngoone ah ngoone da ngay dellu ah waaw sëñ bi waay kii nga dellu waay kii dellu fa nga jóge waay ah, sëñ ah boo ma boo ma xoolee ma tuccul boo ma ñettee ma tuccul sëñ bi dellu waay yow it yow bëgg nga jigéen naa ah? boo dajee sama ardoise fay de ardoise sama seer ko de waaye ki ñëwoo ma jël dara kii waay waaye ngoone bàyyi nga def waay yow waay ngoone waaw coow bi moom lan la ah sama waay waaye man man man jigéen jàll ah dama dama waaye da ngay waaj waaye sëñ bi delloo jiw bi delloo waaj yow eh gis nga yow gis nga waaye daw laa góor bu ma kontoon. bu wax sa wax papa bàyyi ko. sa waay baal ma kii bu ma la sa waay waaw ma ak yow. baal ma noppali ji looy wax nga wax ma ko. waaye sa waay ñu ngeen di gën di gën say tànk nee na am nga la. damay jàmbaar rek. ñàkk fay na jàmbaar rek. soo bëggee tëj rek.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 DKR 221